fàtte boobu réew mi dootuma nangu ku ma yëpp comme de sama weene laa mayetul kanam bàyyi leen ñuy balaak di ma sonal ak santuma benn nit xam ne dama leen a leen ci ginnaaw bokkataan ñu ñu tëdd benn sonalatuma benn doomu aadama dootuma sonal ci réew mi à tout moment ah nit dootuma sonal de comme de sama weene laa mayetul bala si sama dënn bi benn nit dootuma fàtte boobu réew mi dootuma ku ma yëpp comme de sama weene laa mayetul kanam bàyyi leen ñuy balaak di ma sonal ak santuma benn nit xam ne dama leen a tëral bokk leen ci ginnaaw bokkataan ñu ñu tëdd benn sonalatuma benn mi à nit dootuma sonal de comme ne sama wenn laa mayatul bala sama dënn bi benn nit dootuma